wasallama taslima salaatan wa salaam wa barakatan taquudu biha li cheikh alqadim alqaail sillaali ila aljannati baaxin tawassaat wa kulli wa maali shaana xaamin musassisu ما اخترت ورديت له في الحال والمآل عونك يا معين وبك نستعين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyób jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyób taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal acheikh mohammadul muntaqa sunu borom subhanahu wa yàggal ko fii yokku kàttanam ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook mboolem jabatug sëriñ Tuubaa gépp mboolem kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi di siyaare bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp jataayi sëriñ bi ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna di siyaare bu baax sëriñ Muudu Ngom Ñing ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom lay def joyal ko ci Cheikhul Xadim bismillahi irrahmani irrahim Sëriñ Tuuba qaada lahu allahumma axtaar lahu mas na wax maam Ceerno Ibrahima Faati radiyallahu taala anhu ne ko suñu tuddee yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbihi wa sallama lu ngeen ci teg mu ne ko dañuy wax sallallahu taala alayhi wa sallama alayhi salaatullaahi sëriñ bi né ko man nag daldi joxoñ boppam mu ne ko xanaa mbakke nga dimbali ñu ba fu ñu la tuddatee ñu xam lañu cay teg sëriñ tuuba xaada loxo laaxu maxtaara loxo ne ko fuñ ma tuddatee na ngeen di wax amul moroom ku ci jàqi wooma mbaa nga am xaajo wooma ndanga xam ne am ma moroom siiw na lii ab bind la ndax ñu bari daan nañ ko bëgg a xam waaye man li ma ci jànge ci lii mooy kennal ko ak wéetal ko sëriñ tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu daa kennal yàlla lool subhaanahu wa sunu boroom fay ko ñu war ko kennal ak di ko waxtaane bañ koo booleeg dara yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi sunu boroom subhaanahu wa taala nee na day julli ci moom ak ay malaakaam alayhimussalaam sëriñ tuuba xaadalahu allahumma xtaaralahu nag mel na ni jàng nañu ci waxtaan yi jiitu nekk ku ñuy war di waxtaane la ak di ko kennal ni ñu ko jànge ci waxtaan wi tey jii lu ñu gën di def loolu di gën di jege yàlla subhanahu wa di ko gën a jariñ wallahu aalam sëriñ tuuba xaada laxo allahumma xtaara na nangeen ragal yàlla nangeen sant yàlla subhanahu wa loolu nag lu dee ci wax rekk la waaye du ay wax ay jëf la daldi jëlub téere jox ko sëriñ muhammadul amin jóob radiyallahu taala anhu ne ko maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk ragal yàlla mooy jariñ tey ak suba wér na lool war na ñoo xam ne ragal yàlla subhanahu mooy bàyyi li muy tere ci loolu nga koy mën a sante yàlla sunu borom subhanahu sant gu wér fattaqu llaha la'allakum tashkurun fattaqu llaha la'allakum tashkurun war nañoo xam ne sëriñ tuuba xaadalahu llaahu maxtaaralahu xam na mboolem yiw yi ak jëf yu baax yi kon lu mu tànn di ko digle ba noppi wax ne mooy jariñ tey ak ëllëg war na ku nekk mu góor góorgóorlu kem kàttanam wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadalaxoo laaxuma taaralaxoo nee na nit ñetti yëf la xol bi ak lam ak cër yi ci des xol bi am na dëkk bu mu dëkk am na dund bu mu fa war a dund làmmañ wi am na ko cër yi ci des am nañu ko xol bi am na lu di dëkkam mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala am na lu di dundam mooy yéenew yiw bu saxee ci dëkk bii di dund ci dund bii du tubranke du yooy sëriñ tuuba xaadaluhu laahu maxtaaraluhu ne na làmmañ wi ana lu di dëkkam mooy tudd yàlla subhanahu wa taala lu di dundam mooy waxu yiw bu saxee ci dëkk bi di dund ci dund bi du tubranke du yooy sëriñ tuuba xaadalaho laahu maxtaaralaho nee na cër yi ci des ana luy seenub dëkk mooy li ak li ñu sopp ana luy seenub dund mooy jëfu yiw bu ñu saxee ci seen dëkk bii di dund ci seen dund bii duñu tubranke duñu yooy sëriñ tuuba xaadaloxo laaxu maxtaaraloxo nen boo saxee ci yenew yiw ku la mën a bañ dana mujj sopp la sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee boo saxee ci waxu yiw ku la mën a ŋàññ dana mujj tagg la sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu nee na boo saxee ci jëfu yiw ku la mën a toroxal dana la mujj teral wér na lool wallahu aalam sëriñ tuuba qaada lahu allahu maxtaara lahu mas naa woo cheikh ak sëriñ abdurahmaan loo ak sëriñ baara ñang jaabi ak cheikh mohammadul fadilu mbakke radiyallahu taala anhum yebal leen ci néegub juróomi ponk ku nekk mu wax la fa ngay toog ne leen wet ga féete penku na ngeen mok fa bal ba mu agsee nuyoo ñu delloo ko mu door a toog ne muhammadul mustafa ñëw ngeen mu ne ko ñëw nanu sëriñ tuuba xaada loxo laaxu maxtaara loxo xam ngeen li waral jataay bi ñu ne ko déedéet mu daldi samp juróomi baaraamam ba mu dugg ci suuf bu baax ne leen ndax xam ngeen lii lu ma ci jublu ñu ne ko déedéet sëriñ tuuba xaada loxo laaxu maxtaara loxo dama bëgg waxtooy juróom yi doon seere ci lii may bëgg a wax ak yéen muhammadul mustafa defal naa leen ba àdduna tukki ku ngeen fi taseel yéen ko gën bàyyi sëriñ daam abdurahmaan loo radiyallahu taala ne ko waxtaan wi bu yemoon foofu sax neex sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko dana ko weesu loolu xanaa wenn waay mën a lu ko doomam ja muhammadul mustafa defal naa leen seen tey ju nekk mooy dàq seen démb loolu xanaa wutkatub alal mënalu ko doomam ja muhammadul mustafa defal naa leen seen ruux yooyu saa su tàqalikook seen yaram yi ma tàbbal leen àjjana te àjjana jëmale di tàbbal yàlla saa borom subhanahu wa taala daa bindul ju ko dàq waaye kon ceelaa leen di yóbbu muhammadul mustafa ajjana jooje bu ngeen ca duggee du ngeen ca fekk tur wu dàq seen yaari tur yi muhammadul mustafa xëy na ak cheikh mohammad al fadal wala sëriñ daam abdurahman loo li ci des mooy yàgg fi ak mucc bàyyil naa leen ko bu ngeen ko bàyyee mu set bu ngeen ko bàyyee mu boy siiw na sëriñ tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho nee na ñaanal ñi faatu ak dimbali ñiy dund dana taxa gudd fan waxoon na itam ci ay waxtaanam liy taxa mucc wallaahu aalam am na buur bu sëriñ tuuba xaadalaho laaxu maxtaaralaho masa wax ne ko tubaab yi fi nekk seenu nguur jeexagul ci réew mi ku fi nekk danañu la sant lëf nga def ko mbaa nga génn abal leen siiw na inna kullu shay'in xalaxnaahu bi qadrihi wa ma nunazziluhu illa bi qadri almaalum wa kullu shay'in indahu miqdaar wallaahu aalam sëriñ tuuba xaadaloxo laaxu maxtaraloxo nee na bari na yàq bu seytaane di yàqal jàmm bi ak defaru bàyyee ko ca goo xam ne saytaane danaa suma yëgoon bàyyi ko noonu wér na moo tax sëriñ tuuba xaadaloxo laaxu maxtaraloxo di wax ne taabu ibliis allasi fi shabax abkaahu naadiman wa bil yash abax wallaahu aalam mbokk yi ñoo ngi leen di jox dig daje ëllëg insha allah ci seen jataayi sëriñ bi ak seen mbokkum taalibe cheikh njaay gànna di ñaanal sama sëriñ sëriñ abdul ahad mbàkke ibnu sëriñ cheikh mbàkke ibnu sëriñ moustapha bachiru ibnu cheikh mohamadul bachir cheikhul qadim sunu borom subhanahu wa guddal aw fanam lool ba mu mat li ay yéeneem ak ay ci liggéeyal maamam ju tedd joojee cheikh mohamadul bachir ci barkeb sëriñ tuuba qaadalahu llaahu maxtaaralahu wallahu aalam